fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew comme niñ ko baaxoo di ànd ak yéen rek saa su nekk seen invité de la rédaction suñu ganu tey nag nekk Laye Diokhane. Laye est-ce que mën xam ne di sa jaar euh, ci wàllu politique. Euh, sama jaar-jaar ci wàllu politique nag euh, balaa ma ciy dem boo ma ko mayee ma présenté wu pare. Mm-hmm. parce que maa ngi tudd Abdoulaye Diokhane. Mm-hmm. ñu may woowee mm-hmm. ma nekkoon ci benn mouvement nekk représenté woon nañ fi. lu mhm. jiit loolu fekk na maa ngi woon ak sama mouvement di ko dox doxal. Mhm. ñu koy wax mouvement Das Fananan askaw gisoon sama liggéey ñu àndoon doon liggéey ak ñoom. Mhm. ba yàlla dugal tey ma nekk vice président. union des de du département de Mbacké. muy euh, kuréel bi nga xam ne moo boole mouvement de soutien yi nekk ci département bi. Euh, lu toll ci 16 mouvement de soutien. ñu ngi leen ñu bëgg a xam tamit laay yow karimistes yi yow lan moo la ci dugal. ndax boo xoolee mën nañ ne karimiste boo xoolee moom tamit nga waxaale tamit différence am ak li nga xamante ne moo di PDS di parti démocratique moom karimiste yaakaar naa. liñ ci mooy ci war a dugal rek mooy li ci dugal tam yaakaar naa ñëpp ñi nga xam ne am nañ ambition tey gis nañ ne réew mi war na mën a dem. Mm-hmm. Euh, ñoom dañuy ñëw fekk président Abdoulaye Wade ci réew mi. Mm-hmm. mu liggéey ci réew mi loo xam ne Sénégal yëpp ñoo teg seen mm-hmm. euh, ñu doon ay ndaw nag. doon mu doon suñu référence. Mhm. aussi ñu nekk ay citoyens yoo xam ne war nañ participer ci réew mi mhm. ci leen gisee ne ñun war nañ yoon bi ci defar ci suñu gox bi ñu gisee loolu itam ñu ne mën nañ jaar ci côté politique bi mhm. parce que politique ñu ngi koy ñaawal mais mën na rafet euh, te mën nañ ci liggéey tamit lu a liggéey yëpp. nit ñi ñu ngi koy ñaawal politique bi ci ban ñu moom euh, ñu ngi koy ñaawal mais damay wax ne politique nekkul loo xam ne lu ñaaw la politique mooy que ne ñi nga mën a def euh, ba jëriñ sa réew. ni nga mën a def tamit aussi ba nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci société bi ñu nekk nit ñoo xam ne ay dañuy nekk nit ñu am valeur loolu politique dafa bëri ay façon mais kenn ku ne rek ak li ko tax a mais mooy mooy fexe ba réew mi jàkk ci côté yëpp donte mënuñu ko jagal tuuti nañ ci mais ñu def suñu kenn kàttan nga leeral foofu tuuti moo tax ngeen gis fi nga xamante ni moo di PRS ngeen bàyyi ko fi dem ne si non PDS moom ak Karim Karimiste moom loolu nit ñi ñoo koy wax. Mm-hmm. mais PDS ak Karimiste benn la. benn la waaw parce que man ñi ngay waxal. Mm-hmm. dama bokk ci parti bi. Mm-hmm. lu jiitu Karim Wade. ñu ngi woon euh, bi yàlla dogalee nag Karim Wade nekk ci ci ci ci ci génn ñu génn ko teg ci moom injustice. leen taxawee ne ñun kon war nañ mën a défendre kii di Karim Wade te bu ñu ko tegoon ci keneen même bu dul Karim Wade benn Sénégal bu mën di doon mm-hmm. gis bo gis-gis boobu ñu am ci Karim Wade ba di boobu la ñu parce que sursis euh, moom dañ ci war a xeex mi ñëpp ak mm-hmm. euh, fexe ba réew mi jàpp mm-hmm. mais yéen karimistes yi euh, est-ce que mën xam seen yëngu-yëngu fi nga xamante ni mooy ci dëkk bu sell bi di Touba waaw suñu yëngu-yëngu nag yaakaar naa ne mën nañ ko xam waaye nag dëkk bi di Touba dafay nekk dëkk xam ne dañuy ay taalibe juddoo Touba yaroo Touba màggee Touba. Mm-hmm. aussi li nga xam ne moom la ñu euh, sëñ Mountakha di dénk. Mm-hmm. ak ñu ko jiitu yëpp. muy mm-hmm. yar ak teggin. ak sàmmante ak war muy dëkk bi. loolu dañ koy sàmm même suñu doo ci politique yooyu dañ koy bàyyi xel. donte ne nag ñuy politique mais suñu politique ci Touba moom yaakaar naa dafa li ci ëpp ñu yëngu ci affaire sociale. ak jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ak yéeleen tam aussi bañ mën a xam fi ñu teg seen tànk. Euh, mais est-ce que mën nañ ne karimistes yi maanaam ni mu doon doxee avant ñuy moom bokk ci élection yi mi ngi koy doxee xam nga mbir moo gis dafa am nu muy doxee. karimiste bëri na ñoo xam ne sànq wax naa ko suma biir wax mm-hmm. ku ne ak li la tax a jug. Mm-hmm. mënuloo xam nag li nekk ci ñëpp. Mm-hmm. mais man li nekk ci man gis-gis bi ma am ak ñi ma àndal di liggéey ñoom boobu laa mën di waxee. Eh, ñun dañu engagé wu di jàppale Karim Wade. engagement boobu nag euh, ñu defoon. Euh, depuis ñu koy jàppale mën nañu wax ne tey dañ ko doublé mm. peut-être xëy na ku ne ak gis-gisam ni ma wax léegi mais ñun dañuy doublé suñu engagement aussi dafa mel ni tey la ñuy doog a tàmbali liggéey. mais mën nga doublé seen engagement mais mën nga xam mën nga wax tamit ba xam bi nga xamante ne mën mi ngi ci woon mi ngi ci ba léegi wala nekkatu ci. waaw non Karim moom euh, mën naa la wax ne la euh, moom dafa bokk ci parti boo xam ne mooy parti bi ëpp doole ci Sénégal. lan moo tax nga ne moo ëpp doole ci Sénégal. loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. muy PDS yaakaar naa PDS euh, kenn mënul wax euh, Sénégal boo waxul ne mooy P élection yi jot moom moo di topp. pourtant PDS dañoo tollu moment yi nga xamante ne ñu bari dañuy wax mais duñ ko tudd sax ne dañuy mel ni moom néew boo xamante ne gasal nañ ko am paxam ba suul ko ca. non non non <laughs> xam nga. PDS dafa am nu muy doxe mhm. te aussi tam parti dafa am nu muy doxee. Mhm. dañoo am ay stratégies yoo xam ne moom la euh, PDS di doxee. Mhm. Euh, ñun nag dañu ñëw fekk parti bi muy dox ci dox yi boo xam ne ñu ko jiitu organiser nañ ko ba ku ñëw mën ci bopp te aussi dañ ci mën a liggéey. ci noonu la ñuy dox muy continuité. Euh, ci biir loolu tam ma lay wax ne PDS dafa nekk benn train boo xam ne day jaar ci benn gaar am ñu wàcc mais lii yéeg mu ëpp liy wàcc. yaakaar naa bëri moom jàpp nañu ne ay lampe la woon yoo xamante ne doon na leeral fépp mais ñëpp jàpp nañu ne fi ne nii plan bu fi ne moo fi ne may wax yow nii PDS euh, boo boo xoolee élection yi weesu rek. Mhm. PDS mën nañu la wax la mooy daanaka moo nekkoon arbitre bi. nan la nekkee arbitre bi waaw ah, waaw parce que tam so fekkente e dañu doon séntu ci ci ci ci régime bi fi nekk. ñu organiser élection yoo xam ne day transparence mu mu consensus am ci. Mhm. yàlla dogal ñu bëri perte ñu perte ko opposants yi perte ko ñoom tam euh, ñu perte ko ci élection yi. bi mu ñëwee am na taxawaay boo xam ne amee na ko. opposants yi lan lañ perte. Euh, bëri na. lu mel ne lan. waaw euh, xam nga opposant Sénégal li leen xaw a daaneel tuuti bokk na ci combat da am sa combat di ko xeex. Mhm. ñu bàyyee la ko nga di ko xeex yow kese. Mhm. ki nga xam ne moom moo yore pouvoir bi moom mën na jugee ci kii boo liggéey ci sa kaw mais combat bi bu doon ànd di def benn bloc comme ni ko président Wade waxee woon ci élection euh, législative euh, coalition gagnante. Mhm. yaakaar naa euh, loolu Sénégal yëpp bàyyi fekk woon nañ loolu. mais bi ñu ko waxee dañ ne doomu moo ko nag te pourtant président Wade daf ko waxoon que ne pour que ne pouvoir bi nga xam ne moom la ñi yor nguur gi amee. Mhm. tey pouvoir boobu dëpp jël ci opposition bi ba nga xam ne tey li dal Khalifa Sall tey moom na ko bañ a dal. Mhm. li euh, daal yeneen ñi tam ci ci yenn kii mënoon na ko def bañ a dal parce que li ko may loolu mooy majorité bi mu am assemblée nationale. mais est-ce que lay yow sa xel nekkul ci transmettre dañoo gis ñu bari ñu ngi jógee fii nga xamante ni bu leen nekkoon di jàll feneen yow est-ce que sa xel nekkul ci loolu. man sama xel mosul nekk ci transmettre du ci nekk. ah loolu moo nga mosu cee nekk. waaw parce que su ñu doon nekk. Mhm. Euh, bëri na ay kilifa politique yoo xam ne xamante naa ñoom. ñii mhm. ñu ngi ñii ñu ngi bokk yeneen parti. Mhm. te yaakaar du comme dama nekk ci kii eh, télé du ma mën a wax yéen wax yi mais proposition bu ne proposé wu nañu ci ci ñu transhumé mais yàlla dafa dogal ñun engagement bi nga xam ne moom lañ débuté ci politique boobu engagement bëgguñu mu nekk engagement boo xam ne day mujj nax saay mais naka ngay nekkee ci parti te yow ki nga xamante ne man nga moom moom ngay jàppale gisoo ko déggoo ko ñoo di la proposé yéen yi te accepté loolu non xam nga tam lu jiitu loolu mooy ay sénégalais lañ mm-hmm. te na am gëm te gis nga politique dama lay wax benn affaire politique bu fekkente ne gëm-gëm jiituwu ci yow yow doo def politique bi développé benn yoon. askan yow da ngaa jàpp ne ñi transhumé dañoo amul gëm-gëm. ah loolu xëy na seen choix la ñoom ñoo xam li tax ñu transhumé mais man sama bopp laa xam ak tax a jóg. mais laay gis nañu ne euh, maanaam organisé nañu ay élections sans euh, Karim Wade nga xamante ne ma ngeen ne moom ma ngeen di jàppale est-ce que loolu nekkul loo xamante ni tuuma la ci yéen. loolu du tuuma ci ñun. parce que li ñu war a def yëpp def nañ ko. Mm-hmm. aussi li ñu war a wax nañ ko. Mm-hmm. nit nag bu fekkee da ngay xeex injustice. Mm-hmm. Ah, loolu warul waruñu ko di ci yow. Karim Wade dafa mas a respecté affaire wu droit. boo gisee dañ ko teg ci réew yëpp saa boo waxee mu ne nañ topp yoon. léegi nag euh, mboolem loo xam ne yoon may na ko def na ko. ba nga gis ngeen sax euh, CEDEAO génnoon wax ci affaire bu Karim Wade. ak euh, cour d'appel bu Paris. ak yeneen cour yoo xam ne ñu ci àddina bi ñu saytu wàllu droit. jox Karim Wade dëgg ci kaw état bu Sénégal. Mm-hmm. mais gis nga ñii fi nekk tey gis nga ñoom xëy na peut-être ñoom ñoo war a respecter parce que ñoom ñooy gardien constitution. Mm-hmm. mais gis nga boobu ba léegi mën naa wax ne li ma gis daal maa ngi koy doon gis ci réew mi. loo gis yow. li ma gis moom euh, démocratie bu arrière bu dellu ginnaaw boo xam ne kenn mënu la misaal ne démocratie ci réew mi mais parce que président Wade. Mm-hmm. daf daan wax ne réew euh, première. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo yor réew mi. Mhm. mooy population bi. parce que population dafa am solo ci réew. sa population bu amul constitution du am euh, gouvernement du am. Mhm. kon dañu war a fexe li nga xam ne mooy suñu constitution ak gouvernement bi première. Mhm. ñu natt bëgg askan bi natt tamit euh, li nga xam ne moo moo majorité bi wax. ñu ñu sàmmante loolu. tamit gis euh, ne cour de justice bu CEDEAO bi gàntaloo tamit li nga xamante ne mooy candidature Karim Wade ndax loolu tamit joxu leen tool ci benn nga gën cee leeral askan bi. waaw xam nga loolu moom euh, du lu ñu bett. lan ah, lu ñu bett. waaw parce que li tax ma ne du ñu lu ñu bett mooy. Mhm. CEDEAO noonu la mën a réagir parce que tam ñoom bëgguñu lenn loo xam ne peut-être. lu yàq la a dem ba na parce que ñu bari ci Karim Sy dañoo jàpp ne Karim Wade dafay ñëw ànd ak ñoom élection yi. waaw lu bëri daan nañu bett au début mais à dernier moment lu bëri du bett parce que xam nañ fi gars yi jëm. bi ñu nee bëre nag moom xawoon na euh, xëy na peut-être lañ am dina yaa mais bi ñu demee bëre euh, xam nañ bu baax liy xew lu bëri liy xew daanaka mën nañu wax bett bi. li liy xew comme naka dañoo bëgg nga expliquer ñi nga xamante ne ñoo lay bàyyi xam nga bu fekkente ne tey dañ ne dañu dañu dañu tëgg dañu tëgg benn làmb. Mhm. ne arène baa ngi nii ku bëgg ñëw bëri. Mhm. Euh, mbëru làmb bu nekk ñëw taxaw sañ a bàkku sañ mhm. ñu am benn koo xam ne ñun dañ ko ngemb suñu mbër. te gisoo leen waaw muy Karim Meïssa Wade non. Euh, maa ngi ñëw euh, Karim Meïssa Wade nekk koo xam ne population Sénégal dañ ko bàyyi xel aussi dañ ko yaakaar tam ci avenir réew mi. Mhm. ginnaaw suñu borom. Mhm. Euh, tey tam moom am ambition boobu amoon bëgg-bëgg boobu. Mhm. population Sénégal yépp di ko bàyyi xel muy ay mouvement de soutien ay parti ay ñoo xam ne tey ñu bàyyi seen parti sax ñu fekk si ngir yaakaar bi ñu am ci Karim loolu nekk loo xam ne tey mën na wàññi état bi mën na wàññi ci ci ci ci élection yi ñu nga xam ñoo fi ñoo nekk yoon te parce que ñoom lu leen di dooleel ci seen nguur rek la ñuy xool te Karim moom bu ñëwee yaakaar naa ne. Eh, ñëw boo xam ne confirmé wu moom mën nañ ne daanaka yow mën nga cee bañ a sori parce que ñu bare ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jàppale ñu ngi jàkkaarloo ak ñoom chaque jour ñu ngi leen di gis te xam seen activité mais yéen euh, Karim. Mm. ñu bëri ñu ngi naan moom daal affaire WhatsApp yi genre yu mel noonu daal ci di utilisé wu mais kenn gisu ko kenn liiwu ko. waaw Karim moom euh, yaakaar naa gisuñu ko. Mm-hmm. xëy na bu leen neexee mën nañ ko wax dégguñu ko bu leen nee xam nañ ko wax. Mhm. mais Karim ñi ko war a gis ñu ngi koy gis ñi ko war a dégg ñu ngi koy dégg. dégg ñi ko war a gis nga bokk wala bokk. Karim man ci laa bokk waaw. waaw mais ñu ngi koy dégg aussi li ñu war a wax ak moom yëpp ñu ngi koy wax ak moom aussi itam euh, li nga xam ne fii la suñu liggéey. yow nga ñu ko war a gis ci euh, nga bokkoon yow foo doon gisee Karim bokk. non Karim euh, ci lañ bokk dégg nga moo wax ñi ko war a gis ñu ñu ngi koy gis ñi ko war a dégg ñu ngi koy dégg. Mhm. ñun ñi ko war a gis ci lañ bokk. Mhm. donte gisaguñ ko. mais ñu ngi koy dégg. aussi li ñuy liggéey yëpp lu ci bëri ñu ñu ngi rendre compte ak moom ñu xam fu ñu toll ci liggéey bi. te jàpp nga ne moom dina ñëw moom. Karim dina ñëw incha allah. dina ñëw yaa ngeen ko ñëw incha allah. dina ñëw moom toog rek un an nga toog naan dina ñëw dina ñëw ba élection yi romb ko. waaw xam nga li ma wax sànq ne la. Mhm. nit bu fekkee ne da ngay xeex mbir. Mhm. da xeex da fexe ba yow nga mucc ca mais su fekkente ne dama leen di wan ne euh, li fi nekk xëy na euh, ni ñu ko war a soxlaa amee wuñ ko noonu. Mhm. ba pare mën na su boobaa confiance bi Sénégal. mais moom jàppoon ne bi ñu confirmé ne Karim Wade kat moom mënul bokk ci élection yi moom tamit war na mën a ñëw jàkkaarloo ak yéen xamal leen ne comme que man bokkuma tamit maa ngi nii su ko defee seen xel sax mën na xaw a daal tuuti tuuti. waaw na mën a nekk. Mhm. mais tam euh, xam nañ bu baax euh, li nga xam ne moom moom moo ko tey ñëw. lan moo ko tey ñëw li ko tey ñëw. Mhm. bokk na ci moom Karim yitte bi mu am ci Sénégalais yi. ak ambition bi amoon ci Sénégalais yi te moom tam lépp mu teg ko ci gëm yàlla te tam yàlla mooy mooy joxe parce que boo masaan wax kay naan la moom euh, lépp loo xam ne rek. gëm yàlla wala ñàkk pexe. non du ñàkk pexe parce que bu fekkente ne pexe am nañ ko. Mm-hmm. mais lépp rek dañ koy teg ci gëm yàlla te ko tam aussi ci république te ko ci démocratie. Mm-hmm. Euh, parce que réew mi ko koy defar waroo ko yàq. Mm-hmm. te Karim dafa bokk ci ñi defar réew mi. waaw moo tax xëy na peut-être ak ñàkk ñëwam loolu mën na ci Euh, gis nañu tamit organisé nañu élection yi ki a xamante ne mooy président Macky Sall jëlaat na ndam. yaakaar naa ne euh, commentaire mën na ci bañ a bëri. alors ah, moo tax nga ne mën na ci bañ a bëri. mën na ci bañ a bëri parce que euh, président dafa am lu leen waxoon. mën naa wax sax daf leen caxoon. lu ñu caxoon mais gars yi dañu mhm. xam nga président Wade dafa ñëw. Mhm. jamono bi mu war a ñëwee rek ci la ñëwee ndax am réew dafa am lu muy doxee. Mhm. bu ñëwee itam xool la li nga xam ne moo fi nekk xëy na peut gisul ne li waroon am yëpp am na. muy consensus bi ak euh, tam li li li yi war a xam yëpp ñoo xam ko. Euh, fi ñu war a dem yëpp ñu dem fa mais bi mu waxee loolu tam euh, Sénégalais yi dañ ko dañ bëri dañu dañ ko dégg nii mais taxul ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. ne woon na leen ne élection yi ngeen di dem man duma ci bokk au dernier moment sax nee na comprendre naa leen man ngeen a voté ci trois candidats. Mm-hmm. yaakaar naa ne loolu Sénégal yëpp dégg nañ ko. Mm-hmm. boo gisee. kii di Idrissa Gana Touba yaakaar naa ne combat am ñun ñi taxaw nañ ci bu baax a baax. ñi taxaw ngeen ci may wax na kilifa yu bokk foofu mën nañ ko seere. Mhm. waaw euh, ginnaaw bi président waxee ne te man ngeen a voté euh, comprendre naa leen mën ngeen a voté ci trois candidats yi. Mhm. am ñu suwaat ñi am ñu suwaat ñi mais ñun moom euh, dañu nekk ma doon man moom sama bopp laay wax. Mhm. Idi laa doon jàppale. yow Idi nga jàppale te yaa ngi ci kanam kay jàppale boo Idi nga laa doon jëloon ndam transhumé comme ni ko yeneen gars moom li ma la wax sànq rek ci suñu njëlbeen wax. Mm-hmm. transhumé moom euh, xëy na lenn euh, man képp koo xam ne yaa ngi yor ambition defar réew mi. Mm-hmm. Euh, am ittee ci Sénégal bu jëm kanam ci faj soxla askan bi moo xam ci wàllu santé. Mm-hmm. ci wàllu assainissement ci wàllu tamit éducation bi. képp koo xam ne taxaw nga ci soxla Sénégal yi dina ànd ak yow. ci ci liggéey boobu. Mm-hmm. mais euh, li ñu doon jàppale Idrissa am nañu woon ak moom jàppale ko ci yenn condition dañu dégg rek président Wade wax te nit ñi doomu Touba tam euh, kii di Macky Sall yàgg yàgg bëgg a gagné Touba. Mm-hmm. ba li ñu gën a sax euh, tax kii bokk na ci ne muy dégg ñu ne am na ay karimis yu transhumé dem ci noonu ñu gëm loolu la ñoom mën nañu leen jox pouvoir bi mais dañ leen di wax ne. leen loolu ñu wax amut. non non parce que yaakaar naa bu feebar am na kon duñ duñ leen duñ leen bàcc fii ci Touba bàcc yu métti yi nga xam ne moom lañ doon wax ñun. mais dañoo gis ne ki nga xamante ni moo di Ablaye Wade mën nañ ne bi nga xamante ni élection yi jub si na gis nañ ñëpp dégg nañ moom mu wax léegi nag moo tax nag élection yi jaar ci jàmm te kenn déggaate mu wax loolu est-ce que jàpp ne dara da ko laal. non soxlaatul muy wax. parce que li mu waroon wax non li mu waroon wax wax na ko ba pare. Mm-hmm. peut-être bi muy wax dañ ko waroon déglu te dégluwuñ ko. Mm-hmm. Euh, maa ngi fàttaliku bi mu bokkee ci candidat yi wuy ji président Abdoulaye Wade. Mm-hmm. bi mu génnee def. Euh, conférence de presse wax na ne eh, kii di président Abdoulaye Wade waxam bi mu wax nekkul ne ne moom la concerné mais ñun ñëpp la parce que ëllëg su ñàkk di am ñoom ñoo ñàkk. ñoom nekk ay candidats. Mm-hmm. Mm-hmm. mais président Abdoulaye Wade bu fekkoon ne day xeex pour mm-hmm. wax jiitu si avant ñuy déposer candidature euh, moom mooy déposer candidat Karim tam bu boobaa yaakaar naa ne. mais ñu gis ne tamit élection yi ba mu jub see moo di président Abdoulaye euh, ñëw na te Karim moom fa mu nekkoon rek la nekk ba léegi est que jàppoon loolu mën na faa yàqal. non loolu du yàqal Karim dara. nan moo demee du ko yàqal. du ko yàqal dara parce que tam Sénégalais yi dañoo léegi dañuy yow kenn mënu leen nax xam nga gars yi dañu nekk fii man la diw maay def nangam wax ji bëri coow li bëri. Mhm. te wax ji ak diw ji wute lool. mais Karim dafa soit noppi bu liggéey jotee mu liggéey moom loolu la soit. as Karim su waroon a noppi mais parfois muy sànni ba sànni ay audio de. waaw audio yi nekk lu mënta ñàkk rek ak ne pour dalal xelu ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal. parce que tam nit bu fekkente ne yaa ngi yow yaa ma wax léegi ne ma Karim déggu leen ko te parfois muy sànni ay rajo mhm. kon leer na kon Karim ñu parce que dina woote ay dina dina dina ni mu war a mhm. li mu li mu war mhm. euh, li ma la wax léegi rek Karim moom nekk na nit yoo xam première mooy dafa respecté lépp loo xam ne tey dafay dafay sàkku réew mi euh, rawatina nag euh, moom dafa bëgg a réew mi kon war na am benn jikko bu mu amee boo xam ne Sénégalais yi dinañ ko ci bàyyi xel ba bu ëllëgee ñu mën ko jox cër ba li mu bëgg def mu def ko ci réew mi ñu gis ne président Macky Sall ginnaaw élection yi woote na dialogue national est-ce que yéen yéen ngi préparé pour wuy nga dialogue moom yaakaar naa euh, ci réew mi ku koy woote da nga koy woote balaa ngay dem élection waaw euh, balaa ñuy dem élection réew mi ñoo ko bokk mm-hmm. ñëpp ay sénégalais mm-hmm. kenn ku ne am nga ci loo loo moom am nga ci sa wàll mm-hmm. kon yàppoon naa ne dialogue boobu bi ko président Abdoulaye Wade di ko sàkku ci moom avant élection yi. Mhm. nee na woote ñi nga xam ne ñoom la bokkal élection yi waxtaan ak ñoom. Mhm. ci ni ñuy demee ci élection boobu la ñu gënoon soxla ci jamono ji. kon moment bi ngeen jàpp ne yéen soxla wu ko. ah peut-être mën naa am ñu soxla ko. te waajoo Karim Sy yi dinañu topp sa ginnaaw tamit waaj ñu. non man moom euh, maa ngi dépendre ci ki nga xam ne mooy le candidat Karim Meïssa Wade mhm. président. incha allah 2024. ci laay loolu ngi bëgg a yàgg nag yàgg ngeen ñu ko dig de. waaw non xam nga tam euh, li ñuy wax ne euh, yàkkam di baaxul. Mm-hmm. Euh, nit ki da ngay nekk ci dara gëm ko. Olof Ndiaye di wax ne ku yàgg ci teen bi bànq dina ci fekk. teen bi noo xam nga ñun dañu am yére ci réew mi. Mm-hmm. dañu am yéene ci senegal mm-hmm. suñu yére boobu duñ ci xàddi duñ ci bàyyi. Karim bu fekkonte ne tey Sénégal ñëru ko mën naa la wax ne day bàyyi lépp lu muy def dem toog parce que fi mu nekk lépp l mu war mi ngi koy am Euh, parce que suñu ñu ko bàyyi ci euh, xel leen ñu ko jox cër leen aussi. Mhm. mais Karim bëgg a liggéey réewam moo tax ay kilifa yu mag woo nañ ko ne ba Karim te nga bàyyi. parce que lii daal jël ko mais mu ne man du pour man mais askan bi nga xam ne ñoom ñoo ti ci man confiance am ci man fidélité boo xam ne. Mhm. moo tax man may sonn ba léegi mais du jëm mhm. mais yàgg ngeen a xalaat li nga xamante ni xaar li nga xamante ni moo di di euh, Karim Meïssa Wade nekk président su ma juum sax yéen 2019 bi amoon ngeen ci yaakaar loolu yaakaar yu tas que jàpp ne 2024 tamit leneen mën naa xewaat comme ni xewee nii. waaw 2019 amoon nañ ci yaakaar comme ni nga ko waxee. Mhm. yaakaar bu rëy sax. Mhm. mais ñun ay jullit lañ. Mhm. lépp lu yàlla dogal ci ñun loolu dañuy neex. parce que yaakaar nañ ne loolu moo gën ci ñun. mënoon nañu mënoon na Karim mënoon na ñëw jot ci pouvoir bi suñu mu bañ a bëgg ci askan bi mais dañuy ñaan même bu Karim gënul ci askan bi sax euh, ki ci gën toujours da ci nekk mais 2024 ñu ñaan suñu borom mi nga xam ne moo joxe ndam euh, mu jox mu jox ñu ko euh, ci anam boo xam ne nag anam bu mucc parce que sénégalais yàkkamti nañ ñu toog ci siège bi mais jërëm national bi tamit dafa mel ni su ma déggee say kàddu bu fekkente ne tamit di ngeen dem waajagu leen pour dem est-ce que jàppoo leen tam bu jàllee leneen loo mën a xewati ëllëg seen loxo ngi ci biir lii xew xam nga jëlal moom su fekkente ne ñaar nit dañuy toog war a waxtaan yàlla dogal euh, doole ji ëpp ci benn côté ki nga xam ne moom la yàlla dénk pouvoir bi moom moo war a gën a wàcc boppam. Mm-hmm. Euh, gën a bàyyi xel ne tamit moom dañ ko jiital mais keneen mën na jiitu ëllëg. kon nga jàpp ne président Macky Sall dafa wàcce woon boppam. non mën am wàcc na boppam. mën naa am amu ci da ngay da ngay confirmer li nga xam ne exact lii nga wax. noo xam nga confirmer moom mënu ma xam exactement lu nekk ci moom. Mm-hmm. mais li ma jàpp mooy. Mm-hmm. Euh, bu fekkente ne jarul war ma am. moom ci boppam. Euh, moo war a gën a xam li may Jolof xam na ko bu baax. Mm-hmm. parce que tam euh, Sénégal la nekk. Mm-hmm. am na yu bëri yu yoo xam ne fàtte ko du yomb. ñun mm-hmm. nag bu fekkente ne da ngeen am. fi ngeen jaar yu bëri na. non yooyu moom du ñu mën a toog di ko détaillé. parce que xajul fii. mais euh, mais moom ci boppam xam na bu baax lan mooy waral suñu Jolof. ak moom ci ci opposition Sénégal yëpp. parce que gis nga bi élection yi jub see Khalifa Sall ñu ko def. loo xam ne la. metti la ci réew moo xam ne nañ am na démocratie mm-hmm. euh, nga gis ni ñu def euh, aussi euh, ñeneen ñeneen ñi nga xam ne ay ay ñoom Malick Gakou mm-hmm. C25 bi ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay ay parti mm-hmm. ci affaire u parrainage bi parrainage lu baax la mais anam bi ñu ko tëggee ak jamono bi ñu ko tëggee dafa nekk loo xam ne daf leen di gàllankoor ci seen seen seen seen candidat pour ñu mën a bokk ci élection yi Laye mel na li ñu amoon ci waxtu dafa mel ni jeex mm. sa kàddu yu mujj ak lan ngay dénk askan bi nga xamante ni lay bàyyi xel. sama kàddu yu mujj mooy damay sant yàlla di di sant sama ñaari waajur mm. di ñaanal sama sëriñ sëñ Abdourahmane Fall. Mm. Eh, suñu borom defal ko ndam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. di ñaanal suñu Mountakha Mbacké suñu borom yàggal ko fii. Mm-hmm. te itam ndigal yi nga xam ne suñu borom mi ngi koy mi ngi koy jox di ko jaarle ci sëñ Mountakha mhm. euh, suñu borom dimbali ñu kàttanal ñu mhm. ba ñu mën a tegu ci yoon boobu mhm. euh, di ñaan tamit kii di Karim Meïssa Wade del si ci réew mi ci jàmm ak salaam Sénégal yi teeru ko euh, ñu ànd ak moom dem Paris incha allah 2024 ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekkoon lay joxaane nekk tamit ci kari ministère yi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant képp ki nga xamante ni yaa ngi suivre seen site internet bi di 24actu rawatina seen invité de la rédaction ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm Baysar moo nekkoon ci caméra bi ak Barando ñu si sant bu baax El Hadj Ousseynou Ndiaye di leen jox dig daje ci yeneen jotaay